xibaari biti dañu koy dooree ak réewu Mali jamono ji nag ay waxtaan yu bari tàmbali nañ ko waxtaan yi nag ñu ubbi ko gannaaw ba ñu tabee ilimaane jëriñ ca réew ma waaye nag ba léegi gouvernement ba taxawagul Babou Cissé ma ngay wëyal waxtaan ya ngir am guvernement boo xam ne euh, classe politique ba ak ñi nekkee ca kujje ga ak l'armée ba ku ci nekk jot ci sa wàll ñu sukkandikoo ci ay xibaar yuñ jot a jot ña ngay xam le ne am na ci ñaar ñoo xam ne ña nga ca kujje soob nañu seen loxo bu baax ca waxtaan ya waaye nag jamono ji mën naa am balaa yàgg danañu fa taxawal gouvernement bu bees dañu dem ba Madagascar njiitu réew ma di Rasolina téeméeri fan gannaaw ba ñu ko falee ca bopp nguur ga mu daal di yëkkati kàddu euh, di ko jëmale nag ca nguur ga bokk na ca nag ngir jàppale askan wa nga xam ne nag ñoo gën a néew doole ca réew ma lépp nag mu jëmale ko ceeb bi nga xam ne nekk dañu koy importé euh, maanaam dañu ko jële ca bitim réew waaye tam yemu ca wax na ca lépp loo xam ne jëm na ca wàllu gasoil ba ngir fa yéene ko wàññi ak yeneen yoo xam ne dina jàppale askan wa ci seen ak dund ñu dem ba Cameroun opposant bu ñuy wax jeune fille te ñu fëkkoon ko dikkaan na ca mbir ya ak na mu demee ma ngay xam ne ne euh, dañ doon dem ci dëjub député bi di Joseph Brazen euh, te ba ñuy dem te euh, yoon wa ca la ñu bloqué seen convoi ba di xam ne ne ñeen ñi mën nañoo dem waaye moom dafa am lu ñuy wax ak moom ca noonee sax ci la ñu ko téyee lu toll ci juróom-ñaari waxtu ci ay kàddu nag ma ngay xam ne ne def ko ñaaw teef yooyee ba yàgg nañoo def lu ni mel ba ci këram gu ñu lakkoon ak nagam yi ñu jëloon jamono ji nag la muy sàkk moo di kaaraange ñu gën koo yokku ngir ñëpp ñu jeexale ko ak benn élection yi législative yi nga xam ne nag moom la ñu fa doon amal jamono ji nag internet ba ak réseaux sociaux ya jafe-jafe dëgg la am ngir ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ca ku jëga ngir ñu mën caa jotee bi juróom-ñaari waxtu jote bureau de vote yi ubbi nañ ko élection yi nag ànd yu bëri ca réew ma réew moo xam ne nag bokk na ci royukaayu démocratie ci Afrique sowu jant jërë ngeen jëf mbokk yi leen leen indiloon ci xibaar bitim réew yi